later. ko maa ngi leen di ziar bu baax a baax maa ngi tuub de sànq ay problème technique ak connexion bi moo taxoon yëf fi dagg j'espère que vous êtes là bàyyi na ngi ci si jàmm maa ngi leen di leen jox seen wàccuwaay connexion bi en dirait dafa xaw a tuuti yéen a ngi fi yéen a ngi may dégg di nga gis bu baax Babacar gay maa ngi lay ziar nabu nabu Lamine Sarr ziar <laughs> connexion bee xaw a doy waar mel ni day dem di ñëw j'espère que yéen ngi may dégg c'est bon Malick Ba maa ngi lay ziar ça va Moodu Habib Seck maa ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay dama doon xaar rek gars yi commencé connecté wu bu baax comme saa ñu mën a euh, commencé waxtaan bi euh, Timbe Sall tu as parfaitement raison la crédibilité n'a pas d'âge d'ailleurs ci loolu laa bëgg sax ñu waxtaan <laughs> cette crédibilité qui n'a pas d'âge parce que nag Sénégal tey dafa neex. dafa neex ngay tëb yor sa as pukus yor sa micro jàkkaarloog say caméra di wax ndax daa am benn euh, espèce benn énergumène bu génn mu ne man Salma Ibrahima Fall fan laa jóge ndax est-ce que journaliste laa ak ban école de journalisme laa jànge <laughs> Momo Maba maa ngi lay ziar Dabo Lamine Druga maa ngi lay ziar aussi man duma yow te yow doo man connexion bi mooy mooy mooy andi ay jafe-jafe loolu moo tax pour ma wax li ma bëgg a wax dina xaw a compliqué torop torop torop connexion bi moo compliqué mooy dem di ñëw waaye gàtt maanaam sa xel gàtt lool xamoo yow yaay kan ñàkk xam li ngay wax ñàkk maîtriser li ngay wax moo tax waaye bu muusoon tuuti boo déggee Salma Ibrahima Fall dinga nga posé way question ne fu Ibrahima bi jóge waaye su dee dangaa xam ne dangaa nekk koo xamante ni tu ne réfléchis pas avec la tête day compliqué nit ku contradictoire nii musuma koo gis waaye yow ndaw si nee nga yow dooma seetaan nee nga dooma seetaan de waaye saay soo xëyee yaa ngi yaa ngi taal réveil bu wal fajri saay soo xëyee yaa ngi taal réveil bu wal fajri nee nga dooma seetaan te su ma sëkkatee nga tontu ñàkk gis-gis ñàkk xalaat ak ñàkk xam li ngay wax moo tax nga toog di expliquer ndax nee naa la gàtt xel weesuwul dégg salma Ibrahima ak fu Ibrahima bi Ibrahima woo nga ne yow ñaari nit nga respecté wala ñaari journaliste nga respecté mooy kenn ku génnee sesti keneen ka ici ma wala tata je devrais dire jaaruma ici dëgg la non jaaruma sesti dëgg la waaye boo amoon tuuti xam-xam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 ñu nàmpatal ma ci journalisme bu ma doon bër ne xaalis journalisme lañ ma gën mën naa jar ta wax da jëf ñu gis mën naa jar ta jëf ñu gis du ma tudd sa tur nag waaye dama ne nañu tëj ci ndéeg maag yow une heure de temps nañu làkk leen wala bind leen dangaa perte ku perte ngi nii perte weesuwul at yi nga am toog di jokkor maa joor ak jokkale nag xale yu ndaw dama ne ce sera la dernière fois sax yow ma toog naan damay am lu may expliquer ak yow parce que nawloowuma la je le répète doo sama référence te yow ak ah, benn gone gu responsable ci mim réew defu la référence boo xamul sa bopp nag dañ la koy wax nga ne lan man greffage yu 1000 francs xaw ma 1000 francs laa teg périgu 1000 francs mais je suis fière de moi ma belle tu sais pourquoi j'ai pas besoin de di woo benn autorité mu lay juutal par exemple je ne veux pas être vulgaire comme toi moo tax yenn mooy mënuma ko utiliser pour mën a dawal ci 4x4 yi je suis très belle macha allah lépp lu jigéen di am tool ni man tool ni sama âge am naa ko mais je suis digne nga ne lan damaa mere sama ex mari moo tax ma mere waale la yow yow tu es man ba sëy jotee damaa sëy ci farata yàlla ak sunna Muhammad aw maag benn problème sama ex mari nag mu di ku baax di sama bàyyi doom may dégganteeg moom normal mu di sama xarit ba tey jii ba sëy jotee damaa sëy am doom ci farata yàlla ak sunnas Muhammad kenn mësumaa dégg ci lu ñàkk fayda te du mës am ndax ñaari goro ma jur ma juddu ñetteel leen damaa sëy ci farata yàlla nag mooy dogal tas mais j'en suis fière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 waaye saa su tourné yàq deru Walf li ba ne ñaar ñëpp laa yamale yéen ñaar laa yamale dama ne la bu fekkente ni am na ñaar yaakaar ni yow mi journaliste nga kenn ki Aliou saw la tudd keneen ki yow la yow yaa gëm sa bopp maa ko wax et je le dama ne yow lan nga fi def luy sa parcours bari na ñi may woone ma bul ko tontu duma la wér eh, di ñu wax dëgg la il en fait li ñu wax dafa sax weesu dëgg ils ont raison waruma la tontu parce que loolu suufee sama bopp la ñàkk nga classe ñàkk nga personnalité kenn xamul looy nduróol neewoon naa duma la xas ci sa physique mënoon naa ko dëgg la mënoon naa ko ndax kenn xamul yow lan nga ndax jigéen dina toog di wax sax ñu ne kii de jigéen la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 ah RTS radio télévision sénégalaise doy na ko sëkk liggéey du la tontu faalewuñ la nawloowuñu la ñoom ñaar duñu la tontu te ñooy sa problème mu àdduna te dangay gaañu rek waaye avancement la ñuy am yow nga toog fi nga toog di wax. du li nag dangaa wax waxi Pastef comme ni nga ko waxee noonu moo tax ma lay tontu ndax yaakaar naa ne rek patriote yi mën nañ xaru tudd mat xaru tabaski ñu ngi lay lijjanti ba mu normal.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 saay yi soo tiiree Ousmane Sonko mi ngi gën a jëm kanam kon man loolu yëngaluma ndax ndax yaakaar naa ni patriote yi man li ma ko waxee léegi rek man nañ xaru tudd man xaru tabaski waaye li nag li di ah, Walfadjri nekk ci ay jafe-jafe yow amoo looy def lu dul génn di tiire bu ñu nee bu ñu nee nii nga naan ay man relation bi ma amoon diw gisuma ku ko am ak dama ne l'histoire fii ay gone lañu waaye l'histoire reste xam demeure lépp lañuy dégg te nopp amul kubéer waaw nee nga yow sa montre xaw ma lan salam man na ma sama cinq de salaire oh ma grande je suis fière de moi je suis fière de moi parce que salam boobu noonu tey jii ni nga def ba am ko su ma neexoon am lu ko fawxa waaye damaa diñ yaakaar bii pour mën a dund góor duma yab ci àddina fii ci Sénégal mësta am sama salaire wal fajri boobu ngay tuutal ak di tuutal wal euh, salaire wal fajri en général on est fier parce que lu mu tuuti tuuti ñu ngi ciy ñàkk di jëriñu lu mu tuuti tuuti ñu ngi ciy dimbali suñu ay way jur mu barke lool nag moo ñu gënal yow sa 4 x bi ngay dawal ak sa lam ak sa montre yu cher yooyu ak sa lunette yu cher yooyu nga xamante ni moom nga wane. gënoo ñoo xam yoon bi de ëppoo ñu opportunité bi waaye dañ koo mënul ndax lan deretu garmi la nu yor ñun ba sëy jotee danoo sëy sëy ci farata yàlla ak sunnas Muhammad divorcé nag te xolal garder la tête haute la tête haute amuñu benn problème ak suñu ex déedéet tey lañ gën a mën a déggante tey jii lañu gën a mën a sekk jàmm ce sera la dernière fois may jokkor maajoor jox leen ak yow parce que jaroo ko amoo personnalité bi te màkkaama guni toll sax yow waruma la koo mën a jox waruma la koo mën a jox parce que yow di wax ak yow nii sax la lay may ay vues ñenn ñi di dugg sa as sa loolu du ma ne sax sit sa loolu di xool lan ak lan nga fay wax ma grande grand-mère da xaar ñaa ngi dégg ñun ñuy du ma la ne tataa de du ma la ne yaay parce que man nga ñu maam yow fépp foo jaar dañ la dàq RTS dañ la faa dàq télévision Futurs Médias dañ la faa dàkk ba tey yow nga ne grand nga ne yow journaliste bu mag nga bu mag nga lan lan nga fi def ma maa ko wax maa ko réitéré il t'a fallu 14 minutes pour poser une question li gën a yomb ci journaliste mooy résumé mënoo ko maa ko wax. maa ko wax tiré sur sur Ousmane Sonko Ousmane Sonko am na ñu ko waxal. am nañu ko waxal ndax sa 72 heures yii ñu la fi defal yaakaar naa bu la doyul yow dara dootu la doy Ousmane ko ay patriote am mën nañ xaru tabaski mar nañ xaru tudd maa ngi koy waxaat léegi. kon yow du ay nga téere si Ousmane Sonko moo tax may jug di wax waaye sa ñàkk ngor sa ñàkk kóllëre moo ma yëngal. ce sera nag la dernière fois may wax ak yow. parce que du sam sa moroom yaa ma mais duma sam maas du ma moroom duma sam sa màppandooy man man nga ma maam waaye amoo classe amoo personnalité amoo dignité soof nga kenn xamul looy nduróol fi toog na nga may tojal mais bu bu toll ni yow toog di jokkor maajoor ak man du ko def ce sera fois léegi nag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 j'en suis fière ndax damaa ñàkk ba ne ñii jariñu ñaq jariñu soo koo jënd damaa ñàkk jariñu soo koo jënd su ma neexoon def ni yow wala ma def ci samay moroom waaye nag damaa judd ñaari góor jur ma li ma la waxoon rek ma judd ñetteel leen am lu may bañ am dignité ak personnalité wax ak yow nag rabaissé wu la sax ci sama bopp mais fallait que ma def ko tey mais di la wax ni que ça soit la dernière fois